Euh, bi mooy sama première euh, apparition on va dire ci press bi nii euh, mënuma dem te aussi du ma du ma profité ci occasion bi pour quand même ñaan ñaax ñaax population yi mais aussi ñaan leen ñu ñaanal ñu parce que aussi dañoo sumb liggéey bu rëy ci chemin de fer bi dañu sumb liggéey bu rëy autorité yu bees yi dafa am gis-gis bu bees bu ñu am ci chemin de fer bi ñu war ko ñu war ko doxal ñu war a doxal gis-gis bu bees boobu noonu parce que dañ jàpp ni suñ chemin de fer bii nga xam ne moom la ñu colon yi bàyyil fii nii méngootul ak li ñu soxla jamono yi dañu soxla chemin de fer bu bees dañu soxla chemin de fer bu bu performant ci ci ci liggéey yooyu lañ nekk def ba ñu nomee ba léegi te loolu nag dafay laaj suñu emprise ferroviaire yi ñu am suñu domaine ferroviaire yi ñu ñu ñu sauvegarder ko ñu préserver ko moo tax may ñu lancer appel encore population yëpp moo xam Thiessois yi la moo xam ñëpp ñi nga xam ne dañuy ñu ngi dëkk ci wetu yi ñu dimbali ñu ci préserver suñu patrimoine bi nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk ñu chemin de fer bi mbali yi ñuy sànni ci raay ñu bàyyi ko aussi occupation yi nga xam ne euh, euh, yu anarchique la yu ñuy def ci kaw ci emprise aussi ñu bàyyi ko parce que dañoo soxla emprise yooyu noonu pour construire chemin de fer bu bees bi nga xam ne moom la autorité bëgg ñu def donc vraiment appel boobu laa bëggoon lancé mënu ma woon dem te ko wax donc euh, di ñaanaat encore sénégalais yëpp ngeen ñaanal ñu parce que ambition yu rëy la yu autorité am incha allah dañu koy doxal bu soobee yàlla voilà au Sénégalais au Thiessois à tous ceux qui habitent le long de la voie ferrée en tout cas de de de de, de nous aider de prier pour nous aussi mais surtout de nous aider à préserver ce patrimoine-là qui est le chemin de fer. Aujourd'hui, les nouvelles autorités quand même euh, de donner un nouveau élan à ce chemin de fer parce qu'on parce qu'ils estiment que ce chemin de fer-là qu'on a hérité des colons euh, qui a plus de 100 ans ne répond plus, ne correspond plus aux besoins en tout cas de développement du pays. Et qu'on doit construire un nouveau chemin de fer performant, capable de, en tout cas, euh, euh, euh, d'être ce support-là à l'économie du pays. Et pour cela, on a besoin quand même de, de, toute notre emprise. On a besoin de tout le patrimoine de chemin de fer. Et, et, et c'est une invite que je fais à toutes les populations de nous aider à préserver ce patrimoine-là, ne pas euh, déverser les ordures sur la voie ferrée. Hein, ce n'est même pas bon pour l'environnement. ne pas aussi euh, venir s'installer sur les amplis ferveurs, c'est très dangereux, euh, c'est pour leur propre sécurité, mais c'est aussi c'est pour euh, nous permettre en tout cas de disposer de ce patrimoine-là pour construire ce nouveau chemin de fer-là qui, euh, qui est tant cher au, en tout cas à nos autorités.